ne Pastef am na majorité euh, ci fi nga xamante ne moo di assemblée nationale bi est-ce que beneen jàngat bu ci am ngir ñoom it ñu gën a euh, defaraat seen image par rapport ak li fi xew nga xamante ni tout le temps dañ leen doon ŋàññ ci taxawaay bi nga xamante ne amoon nañ ko ñoom. mën nañ jàpp loolu man loolu sax laa gën a gis parce que dañuy rattrapé wu xam nga tamit am na si yenn jëf yoo xamante ne comme li waa ji di faral di wax histoire dina ko bind te ñoom dañ koo def ba histoire bind ko ba pare euh, ils ont toqué la mauvaise porte parce que période bi c'est pas le moment ñoom li ñu fi def daanaka yàggul ñu ngi wax sax est-ce que loi d'amnistie bii nga xamante ne ñu ngi koy waaja a tëbal te ñu bëri xam ne loxo Ismaïla Madior Fall da cee dugg parce que jàpp nañ ne moom moo sax libbale li nga xam te ne moo am na ñu ñu ñu ñu jàpp lool ne moom moo libbale lu jëm ci loi d'amnistie bi ñu tegoon et tamit toogoon na ci plateau yi layal ko même sax ba si troisième candidature président Macky Sall donc yooyu noonu yëpp mu def ko ci ay kii pour man c'est pas moment bi lay génn def benn texte am bi nga xamante ne mën nañ ko jàppee ab lettre bu mu jagleel kilifa yi dafay rattrapé wala dafay dafay dafay dabu yenn ci erreur yi nga xamante ne defoon pour man ñaaw na ba noppi comme ni ko gars yi te day gën a ñaaw li koy gën a ñaawal mooy bu ñu yëkkatee loi d'amnistie bi et bu ñu defee ay réformes judiciaires gëm naa ne moom ci boppam peut-être bu ñu ko si joxee part de responsabilité am xam naa ne dina tal leneen lu dul lu dul lu dul yëkkati ay kàddu di ko et gëm naa ne am na si ñoom te neen li ñuy li ñuy lay wala li ñuy defendre seen jëfi seen seen seen propre gré wala seen propre bëgg-bëgg bopp lañ koy defee parce que boo xoolee mu ngi naan war nañu mën a xool peut-être benn candidat à la présidentielle bu yoon wara topp war nañu mën a réformer mbir yi ba tey bu waree dem candidaté loolu du ko yàqal candidature e ñu ngi jëm ci 2029 ñu ngi wax que ne dañuy yëkkati loi d'amnistie am na ñu nekkoon ci biir nguuru mag Sall yoo xamante ne nee nañu seen loxo setul wala bu ñu tegee haute cour de justice. Mm. mën nañ leen teg loxo donc am na si ñoom te ne ay potentiel candidat lañ en deux mille vingt neuf donc pour man il a bien calculé sa sortie et mu ngi layal ñi nga xamante ne sax yeggaguñ fa au cas bu fekkente ne yëkkati nañ euh, loi d'amnistie bi wala ñu teg haute cour de justice ba juger leen pour que ñoom bis bu ñu yeggee en 2029 euh, ñu sukkandiku ci kàddu yi Ismaïla Madior Fall wax bu fekkente ne topp nañ ko ci sens boobu pour ñoom itam ñu mën a candidater même bu fekkente ne yoon teg na leen loxo wala teg na leen ay daan donc pour man am na ñu muy waxal ñoo xamante ne feeñaguñ mais aussi wax ji am na fu mu ko jublu moom ci boppam pour ragg derem donc l'un dans mën nañ jàpp ne li muy def def na ko et c'est pas anodin calculé na ko xam ne lu tax mu génn wax loolu donc nañu xool ndax ñi fi nekk dinañ ko fekk ci ci wéy boobu am déet. d'accord alors ñu desandi ba tey ci information yi nga xamante ne jot nañ ko fi euh, joxe muy euh, waa Sàmm Sa Kàddu euh, trois sièges yi nga xamante ni provisoirement ci ay résultats yi nga xamante ni moom la ñu am balaa ñuy àgg ci résultat définitif yi ñu ci àddu nga jàpp ni loolu ab lajj la ci coalition bi Mouhamed. lajj bu rëy lajj bu mag et gëm naa ne sax du coalition bi rek moom moom moo ñàkk. mais booy xool boo doon boo doon calculer tey ci biir coalition ba man dama naan ñett ba ñeent ñoo ci gën a perte. Mm-hmm. benn pur si si grand perdant yi la bokk Bougane Gueye Dany ci grand perdant yi la bokk Pape Djibril Fall ci grand perdant yi la bokk et ensemble seen coalition bi tamit ci ñi nga xamante ne ñàkk nañ ci ci ci élection yi la bokk parce que boo xoolee tey euh, ku ci mel ni pur. mu ngi woon ci benn euh, ascension boo xamante ne amoon na benn électorat bu ko favorable boo xamante ne muy taw muy ngelaw muy naaj dañuy voter pur donc boo xoolee ñoom yenn ci ay résultats yu ñu jot def sax dafa bett ñu bëri parce que dañu jógee 2017 mhm. su ma juumul jëlee fa ay sièges yoo xamante ne amoon nañ ko à l'Assemblée nationale ñu bëri ne waaw fan la pur jaar ñen ñoo koy votel fekk ñoom am na seen benn électorat boo daf leen favorable léegi nag électorat boobu noonu day identifié wu ci idéologie bu Pastef doon dégagé donc boo xoolee même en 2019 gis nga position bi ñu am euh, ci élection présidentielle yooyu ñu génn donc ñu nekkoon ci benn wéy boo xamante ne même bu ñu yeggsee en 2022 ba ñu nekkee ci élection législative gis nga même même même même peuple bi même nit ñu leen doon votel ñoom ñoo daal di euh, dëggalaat seen seen seen seen bokk seen ancrage ci li nga xamante ne moo di pur mais nag dañu dem ba ci biir surtout ci élection législative yu 2024 yi ñu en 2022 nga nekk en parfaite harmonie ak ñi nga xam ñoo di waa Pastef mhm. ngeen bokk gis-gis ngeen bokk di xàccandoo ngeen bokk di dóorandoo ci biir yeewi askan wi et même même idéologie politique boo xoolee pur ci ni mu faroo depuis jamonoy Cheikh Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane Sy ba mhm. fii da ngay xam ne ñoom am nañu benn idéologie boo xamante ne euh, mën nañ jàpp ne ay panafricain lañ mhm. mën nañ jàpp ne ay patriote lañ mais ay perfectionniste lañ yoo xamante ne peut-être booy xool seen i gis-gis ak bu Pastef dañu xaw a méngoo léegi nag nga dem ba miinal say militant ci discours Pastef ñu si identifié wu jàpp na ñoom war nañu mën a ànd. donc pour man boo demee tey ba def choix ci élection législative yi ak lu mënti xew man jàppoon naa ne peut-être ku ku ku mel ni euh, seen seen seen guide. religieux seen guide moral di di Serigne Moustapha Sy pour man. ku mel ni Ousmane Sonko bu dee jàpp nga ne jàdd na yoon wala li mu doxal ak yow du noonu. Mhm. mënoon nga ko woo ci suuf lu kenn yëgul ngeen waxtaan parce que gëm naan peut-être kuy soog a ñàkkoon na jot wala mënul woon en tout cas interpellé wala leen ngeen waxtaanee lan moo xew qu'est-ce qui se passe ak euh, élection yi ñu jëm est-ce que mën nañu def. yan orientation lañu mën a def pour mën a ànd pour mën a xool mais. li ko sànni pour man mooy déclaration publique bu mu yëkkati jëmale ko ci Pastef période boobu comme li ma la wax amoon na ay militants pur yu doon identifié wu ci idéologie Pastef ak bu Ousmane Sonko la preuve boo xoolee bi ñu demee ci élection législative yi PUR muy battre campagne ci biir réew mi ñëpp di nga sentir que ne PUR mu ngi battre campagne mais boo xoolee ci élection législative yi dañu gis ne Cheikh Tidiane Youm bi ñu jiite rek lañ doon gis ci biir campagne ba yeneen ñu ni mel moo gisoo benn militant wu PUR wala benn jeune yi nga xam te ne bokk nañ ci PUR yu taxaw brandir euh, lu jëm ci spécimen bu sàmm sa kàddu mm. wala taxaw nekkat kat dañuy votel ñi nga xam te ne moo di sàmm sa kàddu et man xam naa si ñoo xamante ne pur la ñuy nooyee pur la ñu gëm et que tamit ay moustarchidine yoo xamante ne lañ ci Serigne Moustapha Sy la ñu jóg mm-hmm. mais boo waxtaanee ñoom dañ naan man dëgg la sëriñ bi laay topp mais élection yi gisuma lan mooy mën a tax parce que pour respecter dynamique bu ñu nekk ba du ma votel nga xam te moo di Pastef donc pour ah. man côté boobu pur perdre na ci dynamique bu mu nekkoon pur send na en deux li nga moo di électorat bi mu amoon donc pour man bokk na ci grand perdant yi beneen bi si des mooy ku mm-hmm. ci mel ni Pape Djibril Fall parce que mënoo jugee élection présidentielle nga participer si même bu fekkente ne am nga li nga am et la ko jiitu nga nekk député à l' assemblée nationale jugee ci plus fort teg euh, mbagg ki nga xam moo di Ousmane Sonko ngeen nuroo jaar-jaar parce que Ousmane Sonko plus fort la duggee assemblée nationale pour man waroon nga mën a fight mm-hmm. xeex ba mainteniraat sa bopp des biir assemblée nationale et loolu gis naa ne choix yi ñu def moom tamit bokk na ci li ko nuir donc pour man moom itam ci grand perdant yi la bokkoon parce que mënoo jógee nekk candidat nekkoon député nga ñëwaat tey élection yi jàll mënoo am benn siège donc boobu benn la si beneen bi si des aussi mooy Bougane Gueye Dany malheureusement moom mooy quelqu'un boo xamante ne ñi mu jiitoon ci politique yëpp ñëw nañu raw ko booy lim ku ci mel ni leen nationalistes bu Tahirou Sarr Bougane moo ko jiitu woon maanaam ci ber sa langue bopp bu fekkente ne mu ngi doon militer seneen parti mais ber sa langue bopp gis nañ ne Bougane moo ko si jiitu mais Bougane boo xoolee depuis ba mu créer mouvement am ba léegi di nekk ci mm. politique ay choix am ñoo koy gën a nuir benn bi si njëkk mooy bi ñu yegsee ci en 2019 ñu war a dem élection présidentielle ñëpp jàpp ne moom ci nouvelle génération bi la bokk et période boobu Pastef mu ngi doon dégagé wu nekk candidat ñëpp jàppoon ne peut-être day dem jàppale ki nga xam te moo di Ousmane Sonko mais à la grande surprise wala à la surprise générale dafa dem choisir jàppale Idrissa Seck bi nga xamante ne ci biir système bi la ko nit ñi dugal fa la doon nooyoo yëpp léegi loolu bokk na ci choix yi nga xamante ne dafa nuire ki nga xamante moo di Bougane Gueye Dany parce que ñu bëri dañuy jàpp ne kii amul gëm-gëm wala amul a teg ci wàllum politique donc loolu ñu jigee si ñu foog ne dina ci yeewoo wala dina ci tirer ay leçons ñu demee en 2022 yeewi askan wi nga xamante ne en grande pompe wala en grande vague moom moo doon yóbbaale ñu ci bëri pour ñu jot ay moom mu dugg si pour des questions wala problème de couleur mu génnaat si ba gis nga li ko seetal daal ko parce que foofu mënoon na ci profité yor mairie bu Saint-Louis wala mu yor mairie bu Mermoz parce que boobu benn vague bu doon dem la mais gis mhm. nga problème mu choix tax na mujj ko respecté ñu ñëwaat en 2024 man Bougane Gueye Dany li ma doon xaar moom moom mooy mu demal boppam berlis sa boppam lu mu am jël mais gis nga après mu ñëw lëngoog ñi nga xamante ne am na sax ñu leen duppee ay coalition contre donc boo xoolee en tout et pour tout lim ci dégagé yépp ci xaalis lim ci daj yëpp ci coono donc gis nga fa mu mujjee ba léegi buggaan Gueye kenn mënu ko identifier kenn mënu ko peser ci en terme électoral donc jàpp naa ne ñooñu ñoo ciy les les les grands perdants léegi boo ñëwee ci seen coalition bi mm-hmm. ak li mu dajale yëpp ci ay ténor ak li mu am yëpp ci ay nit yoo xamante ne peut-être mënoon nañu aspirer nekk principale opposition bu Ousmane Sonko parce que ñoom it ci nouvelle gen boo ci génnee Barthélemy Diaz ak Khalifa Sall ci nouvelle génération politique bi mën a tenir tête Pastef si lañ bokkoon. Mhm. mais manque de proposition. ak manque d'expérience politique ak tamit manque euh, d'idée bu ñu waroon a teg pour mën a peeg askan wi donc jàpp naa loolu moo leen gën a sànq ba finalement et ñu retrouver wu ak. peut-être lu ñu junjagum ces ces yi nga xamante ne jot na wàcc que trois sièges la am mhm. mais tey jii ñi nga xamante ne xar kanam yi ñu gis ñoo xamante ne jàpp nañ ne ñii euh, dinañ dem